Tuuba xamaat na xar bu yees ku xel ma daa xalam am mbégte sar na biiru xolam ngir gis na Tuuba ca kanam Tuuba xamaat na xar kanam bu yees ku xel ma daa xalam am mbégte sar na biiru xolam ngir gis na Tuuba ca kanam waat naa ne daam tey moo ngi ree waat naa ne daam tey moo ngi ree ndax jëfi ñii muy puukar ñii koy puukaree ñoo ci buumu kollëree ngir waxtu Tuubaa ca kanam bu leen ci niig niigal di xaar ku ñaq def ca doonte yaar fukk la buur dana ko aar jëf leen ca Tuubaa ca kanam ay ca murit na gaaw a gaaw bul def lu rëy bam tax nga aaw lu Bamba soxla buur ne waaw kon faw wutur baa ca kanam lele may janeer di ma saamandaay ak leer bu sar dali yokk pas-pas yi di tas yaafus tasar dafa jar ñu woo werakaan yi yépp ñu àndandoo no si way yu tax ba ñu dàmme ndam wala ñuy wesar cey xitte mooy ak njariñ ku fi bëggi may nafa góori ndax ku fa jekki fawu dangay sawar nanu jaamu yàlla te sax ci jaamoo tax ñu xam ci la sëñ bi làqee may yu semmal bépp gor ba waral mu gor màndik mu tuubaa def ko muy muccum murit yuy dëkk mooy sun ngët ji muy suuf su teey taaruy tabax di nuroog wurus foogee su gis rafetaay ba boole ca ak dëgër day dox ne jëmm di màgg ay jéegoom di wéy wér yépp yaatu mu feese barke sa siiwu tur foofee la am mbooloo mu rëy ay judduwaay booloo ne Touba dootu am ab teskitër tudd nooru daar tudd nooru daaray ni bëgg Touba jëm kanam muy sëñ Habibou kuyi kàngam yi ko dar di kuréel gu jekk doxin te way màgg yi mébét parce que nañ bari jom te yor fitu ñooñ ba dar gindi nañ kuréel ku fi jàq fekk nanu njàqareem tumuraanke dëddu na dëkk bee gox yi ko wër jële nañ fi taataay ndox yi andi fi jumtuwaay yuy set setal taxawal béréb yuy saytu wér ñi fi manqué woon am ndox mu màndal seen njaboot ba waral ñu jóg di ko jooytu faj nañ seenu mar lëndëm gi jeex na fi tàkk tey gox boo fi dem lëndëm gi jeex na fi tàkk tey dem fexe nañu mu am làmpam yu leer jële nañu fi mer ñi ngi war di saytu ñi ñàkk doole te leeni jox koddaay ba tax kenn dootu sol file ay sagar suturaak teraanga la nuy saxal suba suñ xëyee bëggug sëriñ bee leen gënal des seeni kër jàmbaar ju mag jëgëram na leen Seex Muntaxa ñaax leen ñu feddali war liggéey bi bam dëgër dafa war ñu maase te koy doxal ku di ab murit futteeku soobu ci biir liggéey bi mooy sa cër dafa war ñu sant gërëm sëriñ bi ñu fanqaloon lori démb yee ba njariñ yu tey moo ko jur dafa war ñu fay naar bii xooram ku ci am xalaat danga jël sa dund gi nga la jënde ko ak defar na nu li wax ju amul njariñ wontee ko jëf fandaañu jëm ci ñaqal ko faawu tabum di fer ñaqal ko nag la ca njëkk mooy fexe dëkk bii Tuubaa mu raw fi te jiitu mboolem dëkk far daw leen te bindu ji ndax defar sëb dëkkuwaay siggal sa bopp la farlu leen te mbir mu ñor nanu yàlla sàmm te aar kuréel gi mu jëm kanam Touba di taaru li feggalee ma ngi way di jur sëriñ Touba ci dëkk bi de muy dox te jëm ca kanam ngir loolu jaayante leen ak sëriñ Touba ci dëkk bi de muy dox te jëm ca kanam ngir loolu moo di li war sëriñ bi sax ay mbiram moom lépp xas na ba mat kon nag ku ci defu ñaqam ay njëriñ di la wër dëkkub sëriñ bàmba yelloowul niroo ci yeneen ciy dëkk ngir sëñ bi moomelul ni kenn na bir te sëñ bi ñaanoon na tuubaa mel ni aljana jee te loolu ñun ñii la war nan def ko muy sunu mbir daalaaj murit yépp booloo farlu feddali seeni laxasaay ndax te tuubaa jëm kanam di lu ñor te ñaari téeméer ci weer wu nekk kat baywul lii compte banque la bopp witt am nga ci cër na yàlla sàmm te aar kuréel gi yokkati leen te yëgge leen te musal leen barke sëñ bi nu yor